jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne génn nañ ci koor gi ñuy baaluwaat àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan suñu borom bi nga xamante ni moo am jéggal yàlla na suñu borom boole jéggal suñu koor yàlla nangul ñu ko def jàmm ci réew mi ak mbooram réewu jullit tey nag ñu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy euh, euh, nu mu tuddati Seras ndax bu ñu nee Seras. nga xamante ne bëri na ay sampion yoo xamante ne fii lañ fiy liggéeyee di fi daan seen doole buñ jugee dem ci làmb ja tey ñu seet ci boo xamante ne kenn du ko présenté ci làmb muy taqee jouru korité muy liggéey dañuy xool lan moo tax muy liggéey jouru liggéey bee ko laaj ak làmb ji nan moo ci def loolu yëpp dinañ ci waxtaan. champion <laughs> ziar la maa ngi dooli ziar bu baax. maa ngi am jàmm. bu baax. tarkindaa bi waaw bu ñuul baa ngi nii de. maa ngi am maa ngi am bu baax a noo dundee koor gi. waaw koor gi comme ni ñu ko doon dundee rek. ñun moom xam nga ni ay Baay Faal lañ. nga xam ne woor it teewul ni ñu ngi woor. nga xam ne alalu Sèye Ibra lañ. maama Samba borom Ngathie Fall laa yaakaar. kooku maanaam Sèye Ibra mooy maamam. waaw te kooku moom soo àndee moom yaakaar naa ni. ragal féete daal day xañ a wërsëg daal. gis naa li nga doon def ci li nga xamante ne mooy wàccaayu ndog yi. gis naa nga nekk ci waar wi. di fees di gor. surtout liggéey bi nga xamante ni yaa ngi koy def xitma bi. waaw mm. ah, mais loolu mooy yoon ndax yoonu Baye Fall damay dégg sama sëriñ naan maanaam jëf. moo siy fay. yoonu Cheikh Ibra mm. soo si bëggee jariñu da ngay jëf. waaw mm-hmm. ah, te man foofu laa tool man chaque jour suma xel si loolu lay nekk. mu mm. tax chaque jour lépp lu may def jëf lay doon. ak lu munti doon su nekkee fees bi su nekkee gormat yi su nekkee dem yëngal cin yi. waaw ah, maanaam lu mu laaj ci biir kër gi rek dama koy jaayante def ko. waaw ndax. am na leneen loo xamante ni dafa neex nga nekk sa biir kër sëriñ maanaam mu ràññee la waaw lu ñu jékki-jékki woo la téléphone yombul te suñ ko defee si rek amaana am na lu tax nga def ko man bàyyi la xel waaw mais man damay gën a jàpp ni man defaguma dara ndax amaana sama yéene si maama Samba borom ngàcc yee su ma jëloon avion jox ko sax taxul mu ma doyal barke maam Seera Faal lépp lu ma mënti def dama koy def ba naan ko dama ko xeeb barke alxuraanu karim waaw. jërëjëf taqe la dalal dañuy toog waxtaan ak moom euh, siyaaraatal leen bu baax a baax a baax kon ñu dugg ci biir xool taqe ni muy dóoree waar ni muy nekkee ci biir ndeysaan. mbokk yi comme ni ngeen ko déggee dégg ngeen li nga xamante ne moom la taqe wax gannaaw loolu nag comme bisu korité la bisu baalu àq la te ñoom ñiy bëre bari na ci mbooloo mi ñoo xamante ne suñu jugee. jàmm gën ñëpp dañuy jóg ànd ak ñoom ñu def ko ñu profité wale rek baalu àq ñëpp baalu àq ñëpp ñaar yàlla suñu borom boole ñu jéggal mbër. onze bila bisimilah inawal yàlla ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ Mama Samba borom Ngathie Fall di sant suñuy leeru sëriñ bi euh, sëñ Seex Jëmm Fall Serif Assane Fall Baye Oudous Fall waaw paaleen bi yëpp daal maa ngi leen di siyaar waaw di baalu àqu maanaam Sénégal ndax maanaam mënu ma ni sax jàmm gën kese ndax maanaam foo dem am na ku lay bëggee waaw damay maas nun gi rek waaw di baalu ñëpp ak di xamal ni baal naa ñëpp ak waaw. ci biir koor gi. Euh, nan nga doon boolee entraînement bi ak liggéey bi noo ko daan defee. waaw damay kii ba ngoon rek euh, suñ dogee ba pare yee ma ànd bu laal ñu dem saal waaw liggéey lu metti nag comme dañoo am komba wallaahi dinañ ci ñëw mais bu ngeen xëyee boo xëyee ban heure ngay liggéey si fii waar bi nu muy demee ndax Seras ku ko xam-xam ne euh, fo gox la boo xamante ni ñi ciy daanee seen doole bari na loolu rawatina mbëri. Mm-hmm. waaw ñi ciy daan seen doole bëri na mais man place laa fi am. ba pare teg si suñu am fi place. waaw ma gérer liggéey bi 7 euh, heures 8 heures daf may fekk si biir place bi. waaw daanaka 19 heures et demi 20 heures moo tax ma wàcc. waaw kon ni may wax ak yow nii nii ba léegi nii nelaw dafa guma ko waaw depuis biig ba léegi maanaam place bi dafa xawoon a salte ñu nettoyé ko ak clients yi ñu commandé waaw nelaw waruñu daal ndax dafa am loo xamante ni su jotee nga am si say client dafay jot wit li ñu bëgg yow nga defal leen ko waaw day laaj nga obligé sacrifice lenn li waaw après nag nga dem yeggali ko ndax loo gis day jeex daal fête bi mu ngi nii jeex na après dañu mën a am temps dem dallu bu baax après nekkaat si suñu entraînement. waaw ndax dama bëgg mbër yi ñu jël exemple. ndax am na loo xamante ni dafa am solo. gis nga soo nekkee ndaw. maanaam dara jaaxalu la. lu ne mën nga koo am si sa àdduna. mais si kaw nga sabablu. heure boo sababloo suñu borom bi jàppale la. mais bul ne man mbër laa. mais damay dem entraînement ñëw dem li jënd fee lu ma reere entraînement ñëw dem li lu ma ndékkee. Eh, pour man du noonu daal eh, war nga mën a dem xëy 6 heures de matin 5 heures dem entraînement ñëw dem dem liggéeyi su ngoonee 5 heures da ngay am temps pour demaat entraînement du la yàqal dara ndax instant toll nii eh, lu la romb dootul ñëwaat te pour man xale yi dañoo war a xoolaat seen avenir lu am solo mi ngi noonu. ndax soo xoolee am na mbëri yoo xamante ni sax ñu ngi fayee ko ay millions heure bi soo leen fëggoon cent mille mat ñu ko génnee pour man nag àdduna du noonu nañ xoolaat seen xel xalaataat ndax xel du jëriñ lu dul xalaat investir liggéey si la bokk waaw man de ñeewuma ku ne si làmb kuy fayee ko million ñeew ma ko waaw ndax li may am yëpp si sama lii laa ko amee si yàpp bii naaguwuma nag ma maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax baax a baax mais loolu dafa mel ni dafa dafa dafa tax taqe euh, reculer ci làmb lu bare bare recul bi ak ñàkk a gëj a bëre bi puisque du tax takke jékki gën a gën a gën a concentré wu ci liggéey bi sax amaana sax dem ba bàyyi ci làmb mën na cee xaj. non bàyyi ji li làmb du ma ko bàyyi ndax làmb euh, sama biir xol la nekk man maa ko bëgg dama koo bëgg sama biir xol la nekk ndax dafa ma jaral lu nekk instant yi du ma nekkee salle di entraîner. damay entraîner comme dof dañ naan ma yow am combat ndax loolu dafa nekk sang boobu dafa nekk suñu deret ñun booy jaamu gëni dafa nekk suñu biir deret mënuñu ko bàyyi daal mais liggéey bi eh, farataal nañ ko bu baax baax baax mais entraînement yi farataal nañ ko bu baax baax heure bu heure entraînement jotee dañuy bàyyi liggéey bi dem entraîner ji. ban combat nga mujjee bëre. Forza 2 laa mujjee bëre. nu demee woon. par avertissement la amee ndam si moom dañoo bëre ba temps bi jeex. moom ma am deux moom moom man ma am trois non deux moom mu am benn yooyu ñu jox ko victoire si loolu. Hmm. actuellement ci làmb ci ku xamul taqe doon wax ci ban catégorie nga bokk yow ban catégorie nga mën a boole sa bopp. yee catégorie bi ma bokk mooy que euh, bool-bool yi ku si mel ne wuli ñooñu dañoo war a bëre. wuli deux. ñu nag ñooñu règlement de compte la ñooñu suñ bëréewul ak tarkindaa seen biir du neex ñoom si seen jëm boobu xam nañ loolu tarkindaa yi lañ mën a bëreel stade fees yee mu am ambiance su euh, euh, amateurs yi kontaan. yow ku la joxoon avance wulli de ñeme nga koo jël. wax de tax ko billaahi ma lekk ko kéwél waxi noppi. waaw fan yi nag euh, Assane Assane Ndiaye mi ngi doon wax sama combat maag Boy Pouy. waaw booy puy mel na mais mënu ma accepté ne am naa combat Max nag woo na ma ne ma booy puy nee naa ko waaw mais làmb daa am nu ma koy jëlee et duñ ne la waaw rek euh, d'accord nañ mais day fekk it mu génnee avance joxe waaw man magum jëmb laa te dafa am fu ma toll si làmb toogatuma ba ay combat des un mois wala quinze jours ñu lay jox avance nga bëre waaw sama làmb dama koy préparé. kon daanaka su ma déggee am nga ak Assane Ndiaye contrat verbal waxtaan ngeen ci kaddu. waaw max ba ba déggoo waxtaan naa ak max si kaddu. kaddu masque mooy sa mooy sa kaddu. waaw mooy sama kaddu ndax max ba mu ma waxee man moom li mu wax wax naa noonu mais it ci kaw mu génnee avance ma mun a annoncé ni am naa làmb waaw te it pour mu bàyyi xel benn affaire que mooy que. nekkatuma fi nga xamante ni damay toog ba 15 jours jot wala 20 jours wala 1 mois 20 jours ñu may jox avance may doog a préparer la am waaw làmb su paree rek suñu déggooyee na avance génn ma nekk si mu nekk si waaw ba keroog ñuy am dal mais fi mu toll nii yéen a ngi ci gudd bu bës setagul parce que yaakaar naa ne ténoru Lansar yëpp sampion yëpp am nañ combat rawatina ñi nga xamante ne moom euh, bu ñu jógee Lansar dañuy jóg de. waaw ñun ñëpp am nañu combat daanaka ñëpp am nañ combat daanaka suñu soo xool abu Ndiass rek moo si amul làmb ndax bu laal ñu ngi koy wax làmb yeah, mais Siteu Mama Lamine Thiatou Fora Youssou ak liis njaago boo yooyu yëpp surtout liis njaago su ma raq la waaw ndax ñoo bokk koñ ah, amaana man maa ko rëbës la jël de yee caatu rëbës la boobu ak am doole te mën a bëre caatu rëbës la jël mais it caatu jàmm gën la jël ñaari caatay bëri ñaari caatay caat original bi. lii sa mujjee juddu jaam a mais amaana man li ma def si moom sax ay mbapatam yu bëri tëgg naa ko. waaw. organiser naa ko ay mbapat mu bëri si am si ndam. mais it mbaam bii dama ko si ñaanal ndam ndax ndamam sama ndam la. waaw dama si am fier pour mu am ndam. dégg nga téléphone ba ba koy sole mën naa laa bàyyi. waaw waaw waaw. waaw léegi nga nooy def. waaw yow soo bëggee dem jaxaay da ngay woo Assane mu yóbbu la ci teemas bi après yow mooy loolu yow moom nee suba midi la koy mën a indi. waaw suba si midi. non yow xoolal xam nga nooy def gaan bee bi jël été bi yow da jël numéro am après yow su ko defee si suba ay midi nga woo ngeen xool fi ngeen daje nga ay récupérer machine bi. émission yaay en direct. laay def nag dégg nga <laughs> maa ngi nii si marché bi gars yi fii lañ ma fekk si marché bi. ah waa waaw wasaare la wasaare. bàyyi jiili ba ok. mu nekk loo xamante ni. Hmm. affiche bu neex la parce que boo nee euh, ñaari caat yi. combat waaye laa <laughs> ilaaha la euh, caatu Fora tamit jël na ndaanaan de ardo la am xam nga ardo. ardo la jël mais caat li tax mu gën ma neex mooy que moom dafa jàppee boppam mbër mu mag nit ñi nag ñoo ko gisee mbër mu ndaw mais ñun mbër mu mag lañ ko jàppe ndax lépp lu mbër mu mag di def ci laamu da koy def. daf ko koy jaral man looloo tax nag mu gën ko naw gën ko bëgg si loolu ndax du xeeb adversaire te du oyofal làmb waaw xeebul si dara nag musique entraînement contact yéeg diin fu ñu dugg da koy dugg luñ laal da koy laal. ñu ñëw ci diggante Ama Lamine Garga 2 combat boo xamante ni le 9 la incha allah. Euh, dina garaaw de. maa ji loolu sama làmb la. sa làmb Mama Lamine li ci digg géew sa làmb. Mama Lamine si biir géew bi rek lay nekk mais làmb jooju man sama làmb la te balaa ngay xam sama làmb jël la neuf nga koy xam. Garga 2. Garga 2 yee mbër la champion la nga mën a wax daa mën a ñun ñëpp xam nañ ne mbër la champion la. mais dama bëgg nga xam Dakar. Ah. <laughs> du saf safaat. Garga na a saf yàgg na. Garga <laughs> la nag bàyyi li nga la safoon ba muy bëreeg sentel di waaw boobu la ne si digg dooleem. mais dama mu xam benn affaire làmb xale koy def mais ay bu maama Lamine ne prip. est-ce dina xeex ak séntu ko ci xeex. Maama Lamine kuy taxaw si àdduna ñemewul ragalul taxaw xuur xeex ak yow te balaa mu laa daan dina la duma pare doog laa daan. non du moom du du mbër mu ñuy duma. si sang bi la nekk si sang bi deret ñëw rek bëre xoolal combat am yëpp amul benn combat am bu muy bëre mu ñëw rek jàpp bëre non non eh, dina la dóor ba pare doog jàpp bëre. bu ñu sumee woon ñoom ñaar nga gis ku ci nekk état de forme mu taxaw Maama Lamine ci combat bi lan moo nekkoon avantage am ñu mën a bëree Garga 2 ba am ci ndam. Maama Lamine li nekk avantage am ñu ngi koy liggéey di ko daas fanaanal <laughs> non le le nga koy xam. non moom ñëpp nee nañ Maama Lamine bi doon bëreeg Bour Sine dootul ñëwati ci làmb Maama Lamine boobu. non déggalum lu gën a pire loolu. moo fi nekk. wallaahi laa lay gëñal ni bàyyi ji li gis nga maama bi ñu combat am moo Garga 2 taxawee ba léegi. wallaahi amul jour muy toog te demul entraînement. xanaa chaque jour dafay jàpp ni mois bii di ñëw la war a bëri. kon combat bett ko. non nekkul loo xamante ni lu ko bett la ndax combat bi mu bëgg la moom si àddunaam xam na fu ko làmb ji war a jëm bëgg nañ ko de. mais teewul ko a bëgg fuuf ndax ji xam na lu ko war a jural te dañ ko yónni yàqamti ko. soutien de famille la mais li ko war dafa bëri lu tegu si ginnaawam dafa bëri moo tax pour Garga de téye ko mënul nekk. daam ngërëmal waajur keroog de maa ngi gis sa statut euh, tarkindaa bi di la sànni xeer naan la hee lii la bu doon parce que la nga doon la nga doon escouade boo xam loo ko doon def loolu moom du du du gone mais xam nga yaram bi dafa nelawoon mm-hmm. te maanaam loo gis lu ne si benn lay tàmbalee. loolu benn mais xam nga comme maanaam salle professionnelle da see baax. Mm-hmm. am na salle yoo xam ne soo ko demee sa rythme yaram rek la ñuy liggéey ak yow. Mm-hmm. dama nekk ak coach Woz yooyu mu may liggéey loolu metti pour ma squatoon euh, cinquante kilos rek problème la si man mais man damay squat cent soixante kilos di wàcc ba si suuf te si wëes laa ko defee war na ñoom keroog bi ñu gisee loolu daf leen jaaxal ndax doon naa ko def mu jékki-jékki mënatuma ko woon mu jékki-jékki di ko defaat moo tax ñu naan ma lii mbaa jàmm la moo lay war ni maanaam saison bii di ñëw dafa am lu ñu war te dafa am loo xamante ni dañ ko ameel waa jàmm te dañ leen koo war a fay. Siteu Papa Sow. combat bi yàgg na daanaka mën nañ ne at yi moom bu tegut mat na at lan nga ciy wax ak combat bi wàccaay bi ak ban date ngeen ko bëgg a bëre xanaa bëgg ngeen tàqalikoo nag ak promoteur bi waaye bëgg ngeen tàqalikoo Papa Sow tamit. Eh, bëgg nañoo tàqalikoo ak moom. Euh, làmb ju gën a soo xoolee suñu live làmb ju ñu gën a métti Papa la. ndax soo xoolee euh, làmb daanaka nga préparé ko at ak nangam. 4 avril lu daaw lañ ko waroon bëre ba 4 avril rombaat na non 5 avril lu daaw ba avril rombaat xam nga ni loolu neexul ci avance ci xale bu ndaw nga xamante ni amul si lu mu jàpp làmb kese la yaakaar nekk soutien de famille metti na mais it di woowaat jàppale yi ñi nga xamante ni it ñooy jàppale Siteu di leen soññ ni Siteu mi ngi ci yoon bi dama bëgg ñu teg ci loxo ku ci teg loxo it day dem ku ci tegul loxo day dem dañoo bëgg it waa jàmm gën Sicap Mbao li ñu war a def si Siteu ñu def ko si moom mais amaana nag am na ñu siy jàpp bu baax a baax a baax mais doole mooy doole mbooloo mooy doole su ñëpp jàppandoo rek day neex incha allah waaw te Siteu daanaka instant yi sax mi ngi gàmbi hmm. waaw. doole. doole wala mystique. non non doole. ku jugee ku mën a dem États-Unis bàyyi fi États-Unis dem Gambie. loolu kay. gis nga su ma koo dégg ci réew mi. waaw mais tey am na li tax mu am mooy que ñun la ñëpp suñu biir ñu ne moom ñoom Maama Lamine Ndiassé Thiat ñu ñëpp ñoo nekkoon doon Gambie mais Maama combat bi dafa jege moo Thiat moo tax ñu ñibbi si bàyyi leen foofu ñoom it ñu liggéey waaw. làmb xale moo koy def musique am na tamit doole si la bokk da ngay root doole ba fees dell musique su ñëwee jàppale la nga dem sa yoon. Siteu nan la mën a def ba daan Papa Sow. Papa Sow dañ koy arnaque. arnaque mooy lan. arnaque mooy que ñun liggéey nañ doole bu wër su ñëwee dañuy jël li ñu moom dem suñu yoon. ñu ngi xam nga Papa bu baax a baax bu bëreeg nees daan mu déggoo lu ma la wax. bëreeg tonnerre daan saf safaat. Papa Sow mu doon liggéey liggéey na ma li muy defar nii nii forme bi rek la defar nii. habillage kese la mais suñ ko jaafee dañ koy club teg na lu mën a xew taqe nekkoo ci diggu géew ba non nekkuma si digg góor mais ñun li ñuy liggéey dañ ko wóolu am si confiance. mais hmm. du tout pour Papa Sow si te liggéeyul pour Papa Sow. waaw ki mu liggéeyal xam na ko te dañ jugee si Papa Sow si moom lañ jëm. looy wax ci promoteur bi nga xamante ni moom moo jox avance Siteu jox Papa Sow avance muy Pape Abdou Fall moom it xaalisam tëdd un an et xam naa ne du coobareem hmm. bu soñoon mbëri bëre dem wutiwaat leneen moom lan nga koy wax. Ba Abdou Fall euh, dama koy encouragé ndax si li mu nekk metti na soo xalaatee jël sa xaalis jox ko ay doomu aadama te bis boobu ba léegi réussiragul imaginer daanaka xaalis bi nekk si ñooñu at ak nàngam nekkul lu neex moom su doon sagoom maanaam suba suba ñoom ñu bëre ko mais di ñaan waa CNG ñu gaaw jox ko dat ndax làmb jooju yàgg na trop te àdduna bëgg nañ làmb jooju Papa Sow waaw te gëm naa ni. loolu suñ ko defee Pikine bi luy gën a yeewaat làmb ci la bokk ndax Cité rek Pikine oh ça dina fees. laa <laughs> ilaaha daa mel ni musul dugg arène na duggagu ba. dugg si Cité arène nationale tarki laay. ba maar la dugg ñu tëj ko te bi suñu duggee arène na foofu loolu di yomb de. pay tarkindaay yaay tarkindaay xale yi tarkindaay ñëpp war a fas la dugg sa arab bi non loolu day garaw barke maam Serafal te fan si cité yi dañ ko nam te incha allah ñun ñoo leen ko gën a nam waaw dina ñëw léegi di leen xamal ne nañ daas fanaanal rek te too dina ñëw ma lay jaajëfal bu baax xam naa jël naa sa temps ndax wax dëgg instant liggéey bi client yeeg lay woo mais maa ngi jéggalu bu baax di la jaajëfal amul solo ñun ñoo ko bokk ndax gis nga cadre liggéey moom liggéey la mais teew li man si làmb laa yëngu te doomu aadama moom su yëngu si làmb li nga xamante ni moo koy may yee da ko war a respecté ko bëgg waaw sama liggéey bi moom laa bëgg bëgg naa ko it mais làmb it bëgg naa ko trop waaw na daal neex na ñaar yëpp neex dañuy xool fi ñu jàpp pare jàpp si làmb waaw day fëgg la borom États-Unis waaw kooku suma papa la <laughs> kooku man dama ko jël bàyyi la ko sama bopp amaana nag su ma koy wax Euh, am na ñu mu neex mais gis nga may woo téléphone demal jëli sama booy bi bëgg baa gaañ amaana man dama ko jël papoo ko ndax amaana nit lu mu la ji rek man soo ma jiwee ngor rek yaa ma moom te amaana jii na ma loo xamante ni parce que alxuraanu karim gisuma luy tax ma jaay sama ngor si moom wallaahi waaw lu ma yor yéene naa ko barke alxuraanu karim su ma yoroon ndam di ko joxe barke alxuraanu karim lu mu la koy njëkk a yëkkati teg ko si loxoom Eh, ndax dafa sori si man te lépp lu ma yëngu ah moom laa si njëkk a gis mu dugal waaw si métier bi may def nii teewul nit daf ma si booleeg ay doomu aadama di ma si jàppale kan kooku bëgg na nga dem bàyyi na la xel bu baax di yëkkati xaalisam di ma jox ne ma investiral nga liggéey kan kooku xam nga ne am na fu mu la teg wallaahi. a bee rafet ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax ji li kontaan naa bu baax mais di sant paaleen bi yëpp <laughs> mënu ma wax ba noppi te du ma sant paaleen bi ndax dama see saf sàpp ndax amaana soo duggee rek euh, leeru paaleen yi bàyyi la xel ñu lay woo amaana kon ñooñu bàyyi nañ la xel surtout seen seex jëmmu faal dafa am yéene si man waaw chaque jour daf may nemm daanaka mënu ma toog ñaari fan taw woowu ma amaana par exemple da nga jéeg kenn ñëw seet si ma fii waaw nga xam ni loolu man maanaam su ma leen gisee sama rongoñ ji day toog waaw surtout démb rek moo si mujj seen seex jëmmu daf ma woo téléphone ne ma sëñ bi nee na nga woo ko amaana bi ma déggee sëñ bi li jugee sama yaram dafa bëri bilaay maa ngi vivre si sama yaram waaw xam ni loolu daal yombul waaw di ñaan maama Samba borom ngaa ci yàlla na fi yàgg te wér waaw ba mu fekkee suñu njëriñ yéene bu ñu am si moom it yee ñu yeggali ko di sant ñëpp waaw yooyu di la euh, remercier ndax lii yombul quoi ndax soo xoolee bu si julli la amaana amoon na yenn li ngay def nga bàyyi ko ñëw jël ma émission bi dama la si sant di la gërëm di la ñaanal si sa liggéey bi yàlla nga si réussir total ba amaana li nga si bëgg yëpp yee nga am ko si quoi waaw kontaan naa trop waaye. jërëjëf mbokk yi euh, gis ngeen taqale woon Baye Fall bi vraiment waxtaan nañ ci loo xamante ni njariñ la ci làmb waaye njariñ la ci mbaru làmb ndax mbër mu nekk danga nga war a am xëy la naam làmb sport la waaye gis nga ba jouru korité mu ngi koy yëngal ñuy ñaan rek képp koo xamante ni yaa ngi seetaan wasaare làmb yàlla na